yegsi nañu nag ci pàcc bu mujj ci xabaar yi moom mooy wax sa xalaat tey jii kenn tënku leen ci kàddu dañuy ñaan rek mu sol mbubu mu jot su ko defee nag dégg-dégg bi mën a neex ngeen mën a wootee ci 88 salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi noo def. soxna si maa ngi lay nuyu di la ziar di di nuyu auditeurs Sud FM yëpp Sénégal ak bitim réew man la Umar Sow fii si Fuladu. Mhm, Umar Sow. ginnaaw bi ma sant yàlla julli si yonent bi di rafetlu liggéey Sud Communication bi. Mhm, jërëjëf di ñaaxaat nit ñi rek soxna si mbas mu ngi Sénégal ba léegi mbas baa ngi fii bu dee eh, kaay wàññee ko luñ mais nañ considère muy fii ba léegi nii laa la wax nañ ñaan yàlla vraiment yàlla jëleñ ko fii encore nit ñi topp eh, eh, digle kër kër waa docteur yi quoi nañ jéem rafet rafetlu vraiment mbàgte. Euh, tey dinaa ñëw ci ci benn directeur bu nekkee fale Dakar ma ne directeur bi ICS ICS mooy centre international du commerce extérieur. Hmm. de wax dëgg yàlla euh, sénégalais yi ñu ngi doog a sentir directeur ci ICS. biñ fi ñëwee ba léegi ni laa doon dafa indi ay innovation yoo xam ne kenn mosu woon xalaat loolu am na biir ICS loolu nag ku am lu mel noonu laa la wax. am yéene boobu am idée boobu naa la wax vraiment président Macky Sall ñu ngi koy ñaax di ko di ko ñaan genre yu mel noonu dañ lay war a doo leen jàppale leen puisque ñu ngi innové innové boo xam ne innovation bu am solo dafa am projet yu bari mu teg laa la wax dañ ko ñaanal yàlla yàlla mën ko mëccal vraiment mu am xel ak moyen ñu ko mën a ki mën a projet yooyu puisque ICS bu affaire commerce moo fi nekk i ci du commerce moo fi nekk lu bëri mu ngi foofu te moom rek kese kese kese moo nekk comme directeur innovel loolu la indi teg ko si table bi loolu nag ñun son excellence président Macky Sall te directeur ci Saliou Keita mu ngi def lu ma ci man te encore lu dem ci élection locale yii di ñëw laa la wax voici le candidat idéal et normal du ba candidat benn bokk yaakaar na waa ñun waa affaire vraiment au niveau Dakar Plateau fi see nit koo xam ne vraiment dafa nekkal ci askan ba xale la mu ngi def lu ma ci mën laa la wax wi donc nag ñu ngi ko ñaan yàlla yàlla may ko wér ak wérle xanaa encore di jaar sama xarit le professeur Moussa Bandé dafa ko jàmm ci jërëjëf jërëjëf Oumar ñu koy jaajëfal bu baax a baax ca fu la du la doon woote ñu xaarandi rek keneen ci bu mu jokkoo bi ci 88 628 98 98 bu ngeen nekkee Sénégal mu mel ni am na ku ñëw salaamaaleykum waaw ah, maaleykum salaam sëñ bi noo def Mbaye Kane moo lay jaar fii ci Dakar naka kan Mbaye Kane daa ah tontoo wax man kañ. tontu naa la man kañ kay iwoda mooy <laughs> eh, eh, bu la nit ki nee iwoda nga ne ko ah. uleef voilà mu goog mhm. kon boog ma ñëw léegi damay wax ci démocratie Sénégal ak réew yi fi mu toll. Mhm. waa APR boo waxee ñu ne Macky Sall def na fi lii def na fi laa autoroute à péage nangam nangam mais loolu Ablaye Wade la la la defar ko ëpp fuuf gis nga joxe alal si réew mi alal yoo xam ne alal yu nguur jël alal yu ñëpp la nga jël ko tabaxee ko du ngóor liy ngóor a mooy nga jubal réew mi man na bokk si sénégalais yi xam ne alal këfuma xaalis këfuma acte yu rafet ak jubal mooy këf or moom bi fi toogee ak léegi yàq na démocratie bi xoolal justice yu ñu mel justice bi da def yaatu xeexukaay tëj Khalifa Sall tëj Karim Wade libéré Karim Wade 3 heures du matin génn ko réew mi ñooy déete waay mu riiwuti Sonko réew mi dal sa mu arrière dafa arrière ah arrière ba bu métti la arrière te bu dellu fa dellu sa gars yi dellu si waat rek léegi nag yàq na démocratie bi justice bi ñu jàppatali ko di ko di ko sanctionné naan ay balaanu kenn xamul parce que bëgg na justice boo xam ne ko def yàpp mais ku mel noonu mën ma ko faral bu dee milliards di ko tax sax du ma ko faral déedéet te Sénégal yi dañu war a xam ne ku jub moo gën ku ku jël kuy tabisi alal ju moomul xoolal euh, euh, avion bi mu jënd cent milliards xëy na ci mbënd mi waa Kër Masar ña ngay jooy te pourtant. inondation 2012 fii la tas Sénégal Ablaye Wade parce que waa PDS fa nekkoon mu tas ko daal di naan day def si économie mobile pourquoi tey tasul bi de teg pourquoi tasul haut bi mu yor ak yeneen ak yeneen yoo xam ne amuñu benn sens institution yoo xam ne xaalis ak li koy xaalis rek pasar pasar paccoo rek pasar pasar paccoo pasar pasar paccoo il faut ñu xam ne réew mi santul Sall santul Diouf santul Wade les citoyens doivent prendre leur destin en main jëlee fi loo xam ne jubadi la alal safuñu de njub mooñu sax te ni nguur gi jubul xoolal li mu def euh, waa kurd bi ñu jàpp ko si audit ba bu mu géré bu dala mu jëf def ko de l'enseignement supérieur <laughs> moom Mbaye ay similiom moo jeex ndakaaru fii la doon wootee ñu xaarandi rek keneen ci bumu mu jokkoo bi bu yegsee ñu jël ko Pape Laye salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi noo def ñoo siyaar bu baax soxna si ñu ngi si jàmm. noo tudd fan ngay wootee. Mhm, mel na ni réseau bi mu ngi daw sëñ bi mun nga déplacé wu tuuti. sëñ bi. ah du ñàkk dina dellu siwaat laata ñu yëkkati eh, jotaay bi ñu xaarandi rek keneen ci buumu jokko bi eh, Pape Laye salaamaaleykum. maaleykum salaam ñu ngi lay ñu ngi siyaar bu baax. delloo ziar bu wér sëñ bi nootu tudd fan ngay woote maam Mor di Padoua Maam Mor ca Padois di siyaare bu baax su ñetti oustaz sow di ñaan gudd fan ak xéewal ak mhm. wér-gu-yaram di leen siyaare ci at mu bees mii mhm. dellu bis bu sell bii di tam xarit mhm. siyaare maam bu baax ku njabootam ci Fatick di ñaan gudd fan ak wér ak xéewal monsieur le ko fàtte benn yoon guddee bëccëg suba ngoon borom liggéey bu rafet bi ci Fatick yal na ko yàlla may jàmm ñu ngi koy siyaare bu baax ci at mi di siyaare bu baax Abdoulaye Kamer bu baax ci liggéey bu rafet ba may def Touba di ko taxaw guddeeg bëccëg suba ngoon ku ne xam ne ne ku dëkk Touba ci xam dara ci loo xam ne Abdoulaye liggéey bu mucc bu ma ko fay nga tey nag audit moom day bisu siyaare ndax day bis bu sell bu màgg ci ñun mhm. bu boobaa it ñu siyaare soxna maam Xarim Mbàkke bu Seex Muxtala ki nga xam ne ci social rek lay dox bu dëgg bëccëg suba ngoon mi ngi dimbali ay doomu aadama boo ko ne soxna si li liggéey lu pour lan la mën a dimbali rek moo ma tax a jóg comme ni ko wajar waju woo doon defee Seex Muxtala Mbàkke mu baax ma yàlla na ko yàlla yokk leer ci liñ mën a roy ci ñoom réew mi réewum teraanga la dimbalante rek ba mu sosoo ba léegi ci la ne ci lu ñu jóg moom mukk ñun ci loolu ñu dund loolu lañ xam ñooñu muy tudd nag ku koy dégg seen tur xanaa da ngay xaruju rek ndax ñooñu moom ko wane tudd bañ a am benn loraange ndax yàlla mën na ko mën nay taw guddi bëccëg subaa ngoon hmm. ci ku ne am dara ñu muurloo ko jàmm gën a am ci réew mi di ñaanal ñi ci réew mi ñu ñu àndal ñëpp. Hmm. saa borom may leen gudd fan ak wér ak a yóbbu hmm. xoloo ba léegi doo ma sa toog mukk a tàggal mi def waaye dara baaxul liggéeyuñu fi dara loolu ku ñëw yàlla rek moo koy wax tax ñuy liggéey ba sonn lu ne def nañ ko kuñ sant kuñ dara nag nga di ko def nag il faut que nit ñi gërëm la wax li nga def waaye di jéggi ni alalu askan wi nga yoroon ndax amoon na fi ñoroon alalu askan wi ci liñ ko liggéey liggéey jërëjëf Mame Mor Mame Mor ca Padois la doon wootee ñu koy jaajëfal bu baax a baax ay similium moo jeex ñu xaarandi rek keneen ci bu jokkoo bi salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ bi noo def sant yàlla bu baax noo tudd fan ngay wootee waaw mën naa la tur bi de xanaa. Uh-huh. lebal ma ko. waaw lebal nañ la ko. waaw. Uh-huh, yow la ñu dañu bëggoon profité ci antenne libre bi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm. Uh-huh. amiin yaa rabbi. ñaan yàlla mu dolli jàmm ci. amiin comme ko góor gi ci yokk daan waxee naa réew mi réewam jàmm la woon yàlla yàlla yokk jàmm ci. li ñu bëgg wax moom mooy euh, <clears throat> Macky dañuy wax ne def na lu kenn deful moom vraiment loolu dëgg la. moom def na loo xam ne ñu ko jiitu woon kenn defu ko ci parce que fexe na moom politiser Sénégal gépp ba nga xamante ne ñëpp dañoo divisé wu ñi jaar droite ñi jaar gauche loolu nag baaxul ci réew fan yi passé na dama dégg ñu ne dafay wut ay plus yu muy jox xale yi ma di ko ñaan nag dama koy ñaan ndax moom li li ministre bi ministre bi yor affaire euh, kii éducation bi li mu wax moom mooy comme Macky ba bëgg na ko dañ koy def moom loolu la wax mais comme dañ koy def na ñu dimbali rek ngir yàlla ba bulul si xale yi ñu bañ ko def ay marron di xaajale di ñu di yóbbu politique ba ca suuf parce que politique moom dèjà mi ngi fépp moom ci Sénégal fu nekk dugal na fa politique bi xaajal na Sénégal mais ni ca suuf moom na leen dimbali boobu mu leen defal ay marron beige rek ngir yàlla waaw loolu rek man moom laa koy ñaan. Hmm. nañu dimbali ba bu mu commencé politique ba foofa parce que dina indi loo xamante ne bi ci réew politique bu dul jeex lay doon te li ñu am da ëpp na fi mu ne doy na sëkk réew mépp politique daal ci li koy ñaan ci la bokk. jërëjëf sëñ Mm-hmm. jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom looloo ko ñor ci réew mi ñu xaaral xaarandi rek keneen bu yegsee rek ñu jël ko ci 88 628 98 98 salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah soxna Odile. naam sëñ bi noo def. maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp. fay nañ la. ñu ñaan borom bi subhaanahu wa taala allah azza wa jal mu aar Sénégal. Mm-hmm. aar Amérique. aar adduna bi yëpp. yow a maa ngi nag bon waaw maa ngi bon amee suma islamique bi yëpp mhm. di leen ñaanal di ñaanal suñu bopp yàlla defal ñu tawféex wàcce jàmm ci réew mi wàcce ko ci àdduna bi yëpp man li may wax rek mhm. deuxième euh, auditeur bi dugg dama ànd ak moom cent pour cent gis nga dëkk réew nation fondement njub la ak xam-xam bu ñu mënte am ci àdduna te amuñu njub jamais dinañu ñu développé yàlla créé wu pauvreté pauvreté doomi aadama moo ko créé parce que man damay déglu borom xam-xam yi di déglu ustaas yi di jàng ci alxuraan bi mais boo gisee li ñu yàlla jox man je damay daan d'accorduma ni pauvreté yàlla moo koy teg doomi aadama quatre-vingt-dix-neuf pour cent doomi aadama moom mooy teg boppam pauvreté parce que yàlla condition yi ñu jox buñ ci toppoon buñ ci toppee amul kenn ko rawatina umma islamique bi xoolal Sénégal vingt quinze pour cent musulmans dafal ci kafa bi ay Mohamed nga fay gis ay Abdoulaye ay Moustapha rek nga fay gis ci biir kafa bi waxuma ñoom ñëpp dañoo bon de parce que am nañ ci ñu ci bari accidentellement lañ fa demee mais dalal ci société bi ci biir société bi ñoom ñi nekk Sénégal yëpp ay jullite koy def doo waxee ñu ne la barke Serigne Touba génn ci baar wala barke Serigne Touba dem jaalo ji wala barke Serigne Touba dem sàcc ji chaque jour loolu ngay dégg mais noonu il faut ñu defar ko nekk lañ koy defaree ñoom xam nañ ko parce que jàng nañ ko ci alquran mais c'est pas nekk fi di raayante guddeeg bëccëg di raayante Macky Sall rek mënul defar. sër jërëjëf Chérif moom ay similion moo jeex ca États-Unis la doon woote ñu xaarandi rek keneen salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi noo def. ah soxna maa ngi fi rek. noo fan ngay woote waaw man la Mamadou Medor maa ngi lay nii nii waa Sud FM groupe communication. Mhm, Mamadou Medor. di balu ak ñëpp. Mhm, baal nañ nga baal ñaan yàlla baal ñu. Mhm. ñaan yàlla dal def Sénégal jàmm. ndax jamono moom jàmm mooy mbokkam. ndax euh, ku ne xam na ne président de la république président Macky Sall jàmm lay dox moom lay wax te moom lay woote. ba képp koo xamante ne bii wax dëgg yàlla da nga nekk ci Sénégal da war da wax jàmm ñaan jàmm ndax bul wat ni minal iman yonent moo ko wax a ne bëgg sëréer da bokk ci gëm yàlla ndax nit ki boo gëmul li nga nekk gëmuloo li nga doon doo ca doon dara ndax Sénégal dañ toll fu nga xamante ni bii fokk ñuy waxante li fi am waaye ay xasante ay waxante wax yu ñaaw yooyu loolu doxalul dara loolu amul leneen loo xam ne te ñun rek ñun senegal ñoo ko bokk te bu naqar amee ñëpp koy taxaw ah um, um, um, masaw ba tax na daal nañu ñu gën di rafetal te xam ne Sénégal fokk ñu mu rafet kenn mu ñëw di ko jéem a ñaawal ci ci yoo xamante mbirum politique wala leneen ndax loolu dafa nekk lu nga xamante ni mooy suñu cosaan suñu aadam mooy jàmmoo demlante te ku ne xam ne ne président Macky Sall képp muy opposition beeg ñi ñi nga xamante ñi ànd ak moom moom képp ku koo xamante ni bi yàlla tere da ci am defe dana dana sol dàllam ñëw jaala la la waaw wax dëgg yàlla moom xarit xaritu ñëpp la nit la koo xam ne ku ubbeeku ku ku ku oyofal boppam ba tax na day wax ñi nga xamante nekk feex ne leen ah, na ngeen ubbi seen i buntu wax ak nit ñi déglu ni ñi seen i problème ngeen taxaw ci ndax loolu mooy dëgg ku mu jox ndomba tànk looloo tax mu jox la ko ndax président moom moom loolu loolu ni mu mel nii oh, doxalin doxalin bu rafet loolu moo tax ni ñu ànd ak moom fal ko ba tax na dama nañuy ñaan yàlla dellu si jàmm président mi ngi liggéey ku gis engagement bi nga xam ne am na ko ak wax dëgg yàlla mission bi nga xam ne jël na ko mission bu nga xamante ne bi liggéey rek Sénégal dem ci kanam ndax financement bi ku ne xam na xam na ne président Macky Sall mi ngi ci waaye damay ne nañu nañu gën a gën a góorgóorlu ànd bokk ndey bokk bàyyi politique warul tax nit ñi di waxante wax loo xamante ne bi nekkul daal. jërëjëf Mamadou Médor ñu koy jaajëfal bu baax a baax ay simili moo jeex ñu xaarandi benn auditeur rek moo ñu daal di dese. salaamaaleykum allo salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi noo def. waaw sant bu baax a baax. noo tudd ñoo lay siyaar bu baax man la El Hadj Malick nekk di woote Italie. El Hadj Malick Sall ca Italie. waaw sànq dama woote woon mu dagg. Mhm, yow la ñuy déglu. waaw man ci football bi laa bëgg a waxati. Mhm. Eh, dafa mel ni Sénégal xam na ñu muy dajeel. Mhm. Eh, waaye dama dégg journaliste yi ñuy def ay analyse yoo xam ne ba léegi am dafa am lu mel na dañ koo fàtte te waruñu ko fàtte rek ndax dañ ko war a jëli. su ma juumul mooy suñu premier dellusiwaat ci Coupe d'Afrique ndegam fekkoon na nu doon ca dem. Mhm. muy 86. Bokande dafa dugaloon juróom ñetti bit la dugaloon ñetti bit yooyu moo taxoon ñu qualifié pour dem Égypte. Mhm. waaye bi ñu demee Égypte dafa am njàngat lu amoon Égypte. dafa dellusiwaat ren ci Coupe d'Afrique bi ndax dafa mel ne Sadio Mané équipe ba leen muy football di Liverpool am na beneen Guinéen bu fa nekk bu fay football waaye. dama dégg rek journaliste yi ñuy tagg ñu ne Sadio Mané mooy titulaire kooku. Hmm. remplaçant la. Naby Keita. te boo delloo 86 ba la ma la waxoon. Hmm. Bocandé mu ngi doon football ci benn équipe France bu ñuy wax moo juumul. Hmm. Euh, nekkoon fa beneen joueur ivoirien bu ñuy wax euh, Ablaye Traoré. pourtant Ablaye Traoré boobu bande tous la nekkoon Bocandé moo nekkoon titulaire. waaye suñu match ba ak ñoom ca Égypte. bit ba nu delloo si 86 kenn du ko fàtte. corner la ñu dóor ko Ablaye Traoré mbëkk ko mu dugg kon remplaçant la ak titulaire la du solo si. Mhm. solo si mooy nga ba booy dem xare nga bañ a bàyyi xel lu bëri li nga gañe xëy na nag di nga ko bàyyi xel. Mhm. waaye fi nga daanu woon ñëpp nga bàyyi xel fi nga daanu woon comme nag yoon benn ëkk moo ci nekk. te bis bu set boo jaaree ci yoon wi fakkastalu ci boo jaaree ci yoon wi fakkastalu ci waaye waaye ngir yàlla fexeel nag ba xam fi ëkk gi toll boo ñëwee nga moytu ko. Mhm. Sénégal nag benn ndam dong lañu leen laaj du ñaar du ñett amul dóor na diw dóor na diw jàmbaar lañ déedéet ndam li njàmbaar li mooy indi coupe lu dul loolu leneen amuñu ko lu ñu leen di gërëme wala ñu leen koy sante hmm. jërëjëf jërëjëf El Hadj Malick Sall ca Italie la doon wootee moom nag moo nekkoon auditeur bu mujj ci wax sa xalaatu euh, xabaaru tàkkusaan si ñu leen di jox dig daje bu euh, juróom-ñeenti waxtu ci guddi jotee ci xabaar yi euh, dinañu dikkaat ci li nga xamante ne moom mooy wax sa xalaat canta ngërëm ñel ne leen ci ànd bi ngeen di ànd ak rajo Sud FM di fi taataane xabaar Pape Laye Dieye ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci wàllum technique bi bu 18h jotee juróom-benni waxtu kon kii di Marie Rosalie Ndiaye dina fi dikk ci xabaaru faransa yi wax euh, jam ak jàmm